Do what you wanna do. Wanna you. If you would come with me, you. anywhere you want to go. Yeah. Even if you're looking for the one, and I couldn't be him, you'd be sure to see and that I won't just go and take home anyone. I'm about you, girl. See, I don't know you at all But I'm bout it If you bout it Don't give a fuck If you're involved Cause I'm bout it If you bout it yeah. Don't act like you are doing a favor But honestly I swear you're my savior Girl and I don't know if I'll see you later So I'm bout it If you bout it yeah. asalaamaaleykum Sénégal Senegal, àdduna alaikum Aduna. seen xarit euh, Sofia ñëw fi tey pour présenter l'ancien épisode Popstar ñu invité tey Ben naanaan Ben artiste Jacques Ba nuyu la. Sofia fay naa la. léegi dañoo bëggoon xam yow kan mooy Jacques Ba exactement. Wa sant naa bu baax di julli ci yaakaaru jaami Seydina Imaam Al Mahdi ñaanal kilifa diine yi di ñaanal aussi kilifa aada yi di ñaan Sénégal yàlla def fi jàmm di ñaan Sénégal aussi yàlla def fi xéwal di rafetlu ci invitation bi aussi Sophia. problème waaw dinaa soxla euh, ci euh, tontu la ci sa question xam nga je sais pas. Mhm. mi ngi nii doomu réew mi la doomu Sénégal la maa ngi di bëggee di nuyu Sénégal am ci problème maintenant. Euh, dañoo amoon benn série question pour la ko nee nañ yow jaay taar nga nga léegi loolu lañ bëgg nga développer ci tuuti. non xam nga dañ toll si jamono ja nga xamante ne Sofia. Mhm. di Sénégal dafa metti boo ci limee dañu naan da nga salte. dëgg la. boo solo ñu ne la jaay taar. dëgg la léegi loo war a mën a def baaxte. def loo kenn kenn kenn xamul baax gi man léegi jaayatuma ko Sénégal loo bëgg ngeen xam jaayatuma taar dama koy may.

tay do gëm rek incha allah rabbi suñu borom dana ciy fekk si. incha allah si loolu nga wax est-ce que tu peux déduire nga jox ben conseil jeune yi ñi bëgg commencer ci kii bi musique bi ñi bëgg a lancer wu. waaw li ma leen di jox conseil mooy maanaam liy répété mooy maanaam li ñu ko mën a tax wax na la ko sànq lepp lo gëm rek yaa dina ci dimbali te tamit aussi nga man ko ndax boo ko mënul tamit aussi. doo dem doo do dem même sax sax boo ko maîtriser wu ko baax

bon gars yi ngay wax rek ndax mën naa ne dama am staff am sama ginnaaw naa sama vidéo vidéo bi may def nii xam naa moo tax nga posé ma question bi ndax du yow kese ñëpp ñu ngi may ñëpp ñu ngi may laaj dépassage bi bu baax quoi mais ñun bi deful promotion deful promotion mais daf génn naa ko mën ni ñu ngi daw télé doon na télé waaye tey jii si internet la ëppal ma benn yoon laa yi benn télé laa koy yóbbu actuellement nii yóbbaatuma ko beneen télé quoi. Mhm. tey jii ay kilifa bu nekkee ak yow ñu woo la ñu dana bàyyi bii rek te ñoo la jib ci néeg bu lëndam te ku la jib ci néeg bu lëndam moo la mën a wax fi nga jóg. naa vidéo bi vidéo bi maanaam bàkk yi ñëpp apprécié na mu bëri apprécié na vidéo bi. tey ñu naan ma promotion télé te c'est normal muy bëgg si télé mais mu koy yóbbu ci benn télé am am luñ sama tànk te instant nag ñu waajal lu am doole incha allah. ok nañ ko xaar léegi dégg naa tamit bëggoo woon ñu interviewé la. ñu invité la ci plateau lu waral lool. bon mooy li ma la wax sànq rek. mooy sànq wax naa la ko man tey mën naa ne tey laay war a toogaat ci plateau ni may wax nit invité ma may wax ci sama carrière parce que mënuma ko bañal waa social chauffé ma leen di nuyu de passage may nuyu ñoom Thion ñoom Papa ñoom Sall ñoom ñoom ma leen di nuyu si réseaux liggéey bi dafa yu bëri war nañ ma pour maanaam invitation mais suñ la woowee ñu ne la bàyyi parce que nit warul joxe bopp root ci lan man joxe loolu bi ma jëlee sama bopp man joxe naa ne tey tey yow taxawal bul def lii bul def lii la damay déglu conseil jëfe loolu. dëgg la.

mais jàmm ak pexeem yàlla ak doolam bi ma defee compte Flyers ba lépp génn jour bi ñu ko lancé kii bi euh, Flyers bi jour boobu guddi googu si laa def choc si laa def choc après moo tax ñu annulé ko. loolu rek moo tax ak concert bi amul leneen maa ngi ciy dégg ay rumeur yu nekk mais dama defoon choc moo tax jour bi jour bi ma defee kii euh,

mais ak ma ciy nuyuwaale mhm. de passage ñoom Zane Ndiaye ak ñoom nit ñi nga xam ñoom laay nekkal si plateau bi ñoom ñëpp ma leen di nuyu kon tey ji loolu liggéey la. nit teewul musique man nga koy def nga am beneen liggéey nga koy def musique bokkul ak yooyu dara. yéen a na bokk. loolu bokk bokkul bokkul bokkul naa def lii def lii def lii def lii waaw te incha allahu rabbi ñu ciy sant suñu borom bu baax. d' accord maintenant dama bëgg nga. joxe benn mot pour la message boo mën a passer internet yi. waaw benn message bi may mën a passer si jeunes comme Sénégal bi ñu nekk actuellement nii coow bi bari na bi bari na du la fa du la fa du la lenn rek moo ko waral mooy maanaam su ku ki mooy élection yi. nañu mhm. xam ne Sénégal ñun ñoo ko bokk mën ñu ko xarñaar benn bopp la kon tey jii ñun ñu boole suñu xol ñu xam ni. képp ki nga xamante ni yàlla moom la fi teg ñu jàpp ni kii yàlla moom la fi teg. yàlla ku mu fi teg rek nañ loo xamante ne ma ko doon sàmm ëllëg suñu borom dina la ko laaj la li ma doon sàmm ma ko doon sàmm kon jarul xeex. Mm. jarul xuloo yéen jeunesse bi. ma leen di wax politiciens yi buñ leen xànjoo xeer. mun leen xeex lool. dëgg la leen seen carte d'identité yor leen seen ticket war a voté ngeen dem ba si biir kii ngeen xool ku leen neex nga xam ne moo leen doy ngeen votel ko ngeen bañ a saaga ngeen bañ a xeex non violence may ñaan Sénégal yàlla wàcc fi def jàmm Sénégal yàlla def xew yàlla wàcc fi sutura ma lay nuyuwaat di kontaan bu baax si sa emission bi man pop star te yaakaar naa yow sax ku la gis xam ne star nga ndax macha allah li ma leen gisee sax maanaam am na am na lu dugg fii Baye Tooñ donc ñoo fi ñëwoon pour présenter l'émission pop star alors merci les internautes ñu ngi leen di joxaat dig daje ci beneen émission pop star après ñu ngi leen di may tamit benn dédicace. pour son merci. Do what you wanna do. If you would come with me, anywhere you want to go. Yeah. Even if you're looking for the one and I couldn't be him, you'd be sure to see that I won't just go and take home anyone. I'm about you, girl. See, I don't know you at all, but I'm about it. If you bout it, don't give a fuck if you're involved. Cause I'm bout it, if you bout it, yeah. Don't act like you are doing a favor. But honestly, I swear you're my savior, girl And I don't know if I'll see you later so I'm bout it, if you bout it, yeah